moom nga bëgg wax. bien sûr que vous vous étiez opposé à telle bien sûr. Euh, gis nga le palais du affaire caaxaan ni nga ko wax rek c'est c'est c'est la première institution du pays et quand on voit le comportement ce jour-là par exemple. de monsieur Sadio mais yenn artères Dakar rek war nañu mën a bàyyi nit yi dafa manifester mais il y a pas d'interdiction ailleurs. vous savez le nombre de manifestations non écoutez le plateau c'est le palais il faut le dire le ministère de l'intérieur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 et je tiens à remercier mes pères. nga xam ne reproché parce que li naa la bu baax. Mm-hmm. pour vous c'est très léger il faut demander aux gens qui disent on a viré Moussa Diop fan lañ ko viré ak ñu fa nekkoon c'est ça la question fondamentale. Mm-hmm. parce que ñun boobu ñu nee daax nañ leen ñun pas moi dañoo génne kayit wane wan PV wane wane signature yëpp teg loolu ñun leer na nañ nañ nañ. Mm-hmm. doyul ñu indi caméra indi télé en direct Sénégal di ko seetaan pendant une heure cinquante minutes. président wax na ci wala wala wala am na. lu mu ci wax bu gisee ñaar. deux brebis mais maître ma ne bu gisee deux brebis égarées peut-être dañ leen dem jëli mais je profite de l'occasion mhm. ñun mënuñu leen tere ñoom ñaar ñu bëgg a Macky Sall seen xol monsieur Diagne mosul ñëw réunion depuis sept septembre ba léegi comment il faut revenir neen day day diriger fekkee dañu bëgg président Macky Sall seen xol ñi ngi leen koy ñaanal ñu gën ko bëgg mais nañ ko bëgg si seen IRM boobu ñu créé. Mm-hmm. ñun ñu bëgg ko suñu Macky bi ñu nekk c' est ça mais mënoo ñëw di teqale nit ñi di boole nit ak nit bon di ñu bëgg boole sax président Macky Sall. on président Macky Sall il est benn benn question rek si <laughs> ndax avant ñu <laughs> plateau bi. yéen bokk ngeen ci ñi njëkk a gëm président Macky Sall. yéen yéenay euh, vraiment njëkk les les les vraiment ñi njëkk a gëm Macky Sall. Mm. maintenant euh, tey gis nañu président am lu mu dige woon. ñu gis ay rapport génn ñetti rapport teglewu mhm. ñu tudd ci ay nit ñoo xamante ni dañ ko jege. mais li ñu déggee kàddu président la république di wax ni dina saytu dina teg ab commission buy saytu rapport yi ñu bëri dañu jàngat encore que ni euh, dafa nara a mujjee rek fa lépp euh, doxee tàbbi géej euh, kenn du leen jàpp kenn du leen sanctionné alors nan nga jàngate rapport yooyu. ban li may njëkk wax. mooy damay féliciter ñi nga xam ni. ñoo def liggéey boobu damay féliciter également sama cadre yi nekk dem dikk nga xam ne ñoo ma ànd ak man parce que lépp du man c'est un groupe qui travaille <laughs> def de sorte que Moussa Diop dégluwuñu ko dégguñu ko nag depuis six ans Moussa Diop dégluwuñu ko ARMP j'ai quasiment le meilleur rapport de l'année dernière bu bi génne bi dégluñu ko ci Cour des comptes et j'étais là <laughs> parce qu'on travaille d'accord maintenant rapport loolu ci tudd dama ciy remercier ñi nga xam ni ñoo ma gunge te ñu nekk fii di liggéey pour l'intérêt des Sénégalais mhm. c'est pas facile ah parce que di gis dara pourquoi pourquoi gars yi di naan rapport yi njuuj njaaj épinglé parce que yenn saa yi da gis loo xam ne trois cent francs la jar nga def ko mille francs nga nga ko quatre mille cinq cent francs la différence entre vous et le fournisseur mhm. ak yomb par kilo boo ko boolee par tonne vous voyez ce que ça donne dama duggul ci yooyu moo tax je suis droit dans mes bottes. je préfère avoir léegi ñi ci tudd nag. la peau très propre. ñi ci tudd. ñi ñu ci tudd le chef de l'État comme ni mu ko waxee. transférer le dossier au parquet. et puis les choses sont très claires loolu mooy tamit euh, mooy dëgg. on espère que ça se passera en tout cas ainsi. c'est mon euh, souhait. voilà <laughs> merci d'être venu ñu ñu ngi lay remercier bu baax a baax ci sa teewaay parce que maa ngi nii di sonal sama bopp di def di jub ñenn ñi di. <laughs> non il faut ñu relancer affaire yi rek mu sotti. d'accord en tout cas merci d'être venu c'était un plaisir de vous avoir ci plateau bi. merci beaucoup jërëjëf jox ko dig daje prochainement euh, pourquoi pas incha allah di remercier également Ndeye Met Ndaw ak Fatou Abdou Ndiaye jaajëfal leen yéen ñi ñu doon seetaan euh, jox leen rendez-vous demain incha allah même heure beneen thème ak yeneen invité bàyyi leen ak flash d'information bi.